léegi ñu gis ni que TikTok bi dañ koo interdi daal di dagg li nga xamante ne si ni moom mooy TikTok papa maa ngi lay nuyu di la ziar. maa lay fay sama doom. ça va bien. ngi ziar bu baax. naka nga gisee TikTok bi nga xamante ne si gars yi interdit nañ ko. waaw mais loolu du yoon ñun suñu yoon nekku ci xeex ab Sonko ak pouvoir dégg nga ñun danoo jënd suñuy connexion ñoom ñoo ñoom la yàlla may doole ñoom ñoom ñoom ban demee bay dagg na dagg wifi ñu boole lépp dagg ñu ñëpp ñu bokk yem mais ñoom am na njëgu Wi-Fi am nañ ay Wi-Fi teg nañ ko seen kër yi ak seeni doom ñu toog di seetaan di xam li xew ci dëkk bi lu xew ci dëkk bi ñun ñi nga xam ne ñun internet man bu ma paree xam nga ñoon lay wax waa orange jii ñi xam ñun ñun ñun ñun lañ yëpp parce que ñun mënuñoo jël suñu xaalis léegi léegi nii maa ngi nii jëndaat léegi léegi 2000 ñoom dagg nañ ko jël nañ ko arrêté wuñ li ma jënd ba pare doo gis dara doo am benn connexion ñoom boo nga xam bi ñu ba nga xam ne yow yow da ngay jënd ba pare doo sax boo jënd ñu bloqué mais yow da ngay jënd doo am connexion ba pare doo se doo am connexion ba pare ñu jël sa 2000 ah loolu kenn mun ko xam te ñoom bu ndee bay dagg nan dagg wii fi dagg lépp ñu bokk ci yem ñun mënuñoo nekk fii ñu naan borom doole yi ñooy seetaan ñu amul dara ñu dun am dara loolu dëgg du yoon ñun suñu yoon nekk seen xeex bi ñuy xeex nii ñoom bu ndee nga xam ne nee na dëkk baa ngi ci jàmm kay nan ubbi lépp mu nekk ci jàmm mais dëkk baa ngi ci jàmm nga tëj li ñuy bàyyi ñee pare gis nañ ni ko TikTok bi tey boo xoolee mun naa ne sénégalais yëpp muy góor di jigéen si la nekk di jaay tey bu ko daggee tey est-ce que du def benn benn effet boo xamante ni si si ñu nga xamante ni si ñooy live di def ay vente en ligne ci TikTok bi. correction bi sax du TikTok bi kese parce que am na ñoo xam ne nii seen i borom kër ña nga ca dëkk ya di wax ak ñoom ci WhatsApp bii nii parce que nekkuñ Sénégal di wax ak ñoom ci appel international ak WhatsApp. léegi yow munoo bàyyi say waajur nga nekk ca ba xamoo ci loolu la nekk te munoo leen woo lu dul whatsapp nga leen mën a wooyee ci jamono juñ toll nii léegi dafa xew maire sax léegi danoo yor whatsapp ci la nit ñi communiquer yaa ngi dégg de ay tiktok yooyu na boo liggéey ba wàcc nga am temps ñëw dem xool ko xool xew lu xew ci dëkk bi nga mën a toog am jàmm quoi mais daal day joxe li xam te moom mooy actualité yi waaw mu ngi joxe actualité ñoom looloo leen arrangé wul moo tax ñu dagg ko ñoom daf wul mais comme ñoom bu ñuy demee bay dagg man la waxoon orange bu demee bay coupé na coupé données mobile ñun ñëpp ñu bokk ci yem mais munoo jël borom barke nga jox leen seen i ñu toog seen kër di seetaan ñun ñu yor suñu données mobile ñun mënuñoo am dara du yoon bi mu demee bay dagg na dagg ñëpp man nag su ma paree bu lii jeexee orange laay jëm lépp lu ma defante ma delloo sama xaalis ba pare ma dagg seen piis bi sànni waaw am lu ñu métti rek am lu ñu métti rek ñun koy Sénégal moom depuis deux ans yi nii ci lu ñu métti la nekkee da benn liggéey luñ xam xëyuñ gontun si nga sama caabi nii maa ngi gaare la panne mënumaa dem fenn TikTok bi ma jënd nag sama kër di ko seetaan dañ koo dagg aw ma fu ma jëm maa ngi nii fu ma toog fu nga fekk sonal nañu trop depuis deux ans yi nii nit ñi liggéeyun xëyun gontun fu ñu jógee dalaat ci lii fu ñu jógee dalaat ci lii nit donc li ngay bëgg a def da nga koy def benn yoon mu jeex nit ñi jàll ci leneen soo ñëmbul li ngay def nga bako me ñu ñëpp la paralysé ñu ñëpp boo faree Sonko son soo faree Macky sonn soo soo neutré sonn loolu fan lam am nit ku jënd nit ku jënd paasam di di connecté wu nga dagg ko ngir xeexu ngir xeexu lan sa xeex bi du dara kay bu tag bu tag bu tag bi. yi la ñuy bañ mu jàll ci biir TikTok. waaw mais mais xanaa dëgg information kay dafa war a jàll fekkee dëgg nga bëgg kay li nga def dëgg la nga xam li nga def la mais su la demee nga def dañuy ne dëgg état nga teg nga nit lu mu teguwut teg nga loo xam ne ñëpp xam ne lii ñu ngi wax laam-laam da ngay bàyyi information yi jàll ñëpp gis seen bët xam ne dëgg la ñu bàyyi mu jàll loo ko def ñu ne mën ko nangu mais soo soo soo làqee lii lépp bëgg koo def leen dañ yaakaar ne danga am pexe loolu du yoon loolu du yoon sonn nañ trop sonn nañ trop dañuy jàpp nit ñu baa ñu bàyyi leen nit ñi nag mënu ñoo tere wax ñun damay wax man moom Sonko dëgg laa Sonko dëgg laa waaw mais bu tooñee du ma ko faral mais buñ ko tooñee dama koy faral waaw buñ ko tooñee moom dama koy faral man moom du ma ndëbb du ma làqatu Sonko pire dire laa mais nag man du ma du ma nekk yàq du ma nekk dara mais tamit nag am na loo xam ne nit nit boo koy pousse ba ci miir bi foog mu foog mu réagir réagir nag mooy lii mooy lii nit ki mënoo topp deux ni ngay waxee nii TikTok bi daf la daan wéttali de. barke rasulullaay moo ko ba ma génn billaahi wallaahi damay toog suba man liggéey sama oto dafa paan essence barke rasulullaay mënu maa jënd essence deux jours sama oto nga ne gaara lii caabi la for la gis nga ko moo toog fii di féexlu nii aw ma fu ma jëm benn néegi tàng nan liggéey liggéey amul boo boo duggee coono yi dem nii soo wàññee ko doo am oto sii rek ak Padois laay laay liggéey de mais su ma demoon nii maa ngi dem ak ñàkk dem du ma du ma am oto bu may ñibbisi loolu dafa métti loolu dafa garaaw mais bi yow fi ngay toog dem di connecté wu sax di bàyyi sax soulagé sax doo ko am ah pour lan loolu da nga yor sa xaaji fay. en tout cas bàyyi monsieur lu mu def daal baaxul gars yi ñu coupé bi parce que gars yi ñun ñun moom foofu la ñuy filmer di yónnee ñu naan filmer bi baaxul wala leneen te journaliste yi mënuñu jote affaire bi boo demee foofu dañ lay gazé yeneen te foofu ñu bàyyi affaire bi man man maay connecté ah, parce que damay connecté wifi bi ak. VPN ni xaw ma VPN wala lan mhm. boobu laay connecté mais daal gars yi li dagg affaire bi baaxul daal waaw. est-ce VPN bi mën nga cee connecté mu continuer euh, bu xamte ne si dina continuer du dagg benn yoon. non loolu dina dagg kay loolu dina dagg parce que da ngay connecté yenn saa ñu dagg affaire bi wala ko toujours si réseaux sociaux bi affaire bi di mooy loolu di yeex ay yeneen vidéo doo ko mun a seytaan doo mun a envoyé yeneen message mooy loolu. sénégalais yi nga xam teen si ñu ngi ciy jaay di ci gis seen bopp aussi tamit bu ñu ko daggee loolu dina xaw a doy waar moom baaxul moom lu ñu dagg réseaux sociaux bi moom baaxul moom lu ñu si dagg réseaux sociaux bi baaxul gars yi nañu jàppale affaire bi indiwaat affaire bi ñu xam ne waaw ñëpp Sénégal fii lañu ñu bokk waaw merci jaajëf ah Titov de bi nga daggee moom du arrangé sénégalais yi wax dëgg yàlla moom benn instant moom moo lay wétali quoi si ngay mën a xam lu bëri si dëkk bi aussi tamit xam nga rek bu ñu manqué moom dina xaw métti trop wax bilaay ah affaire bi moom na bañ a yàgg rek gaan ah, bu fekkee dañ yàgg rek waaw surtout euh, yi nga xam te ne ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax di ci def ay live ak yëpp waaw loolu moom dëgg moom ndax loolu moom ndax nit ñaa si fay seen tranga quoi waaw ndax nit ñi bëri si lañuy jaay seen produit yenn yi waaw mais mais pour arrêter TikTok bi est-ce que mun na tee aussi tamit li nga xamante ne si moom mooy information yi war a génn euh, génn ah information moom war a génn day génn moom mënu ko arrêté wax dëgg ndax yeneen leneen muñ fi rajo yeeg yeneen ñaa ngi fi waaw télé yi waaw ah kay mooy loolu daal affaire daal mooy loolu <laughs> bilaay man daal loolu laa mu ciy wax moom oui parce que moi je trouve que nu ko coupé tami c'est contre à la démocratie sénégalaise aussi parce que la démocratie mooy nañu bàyyi nit yi ñu exprimer wu nit yi ñu wone lan moo xew Sénégal tamit lan la nit di def ak nit yi lu ñuy wax tamit waaw parce que suñu tere nit yi véhiculer les informations c'est comme si y avait un peu de dictature par rapport euh, à la démocratie sénégalaise aussi oh, oui su ma sañoon tey TikTok les YouTube et tout dinañu nekk intact nañu bañ a couper dara nañu bàyyi nit yi véhiculer leur message aussi même bu du lool sax euh, ñi nga xamante ne si ñu ngi ciy jaay tey ñu ngi liggéey ñu ngi live est-ce que coupé internet buñ euh, wala dagg li nga xamante ne si moom mooy TikTok bi pour ay fan est-ce na téye tamit euh, ñàkk information bi génn. waaw waaw dina dina téye bi tamit dina tere nit yi liggéey tamit parce que ñu si bëri moom la ñuy liggéey tey tey si àdduna bu ñu toll tey loolu foofu la ñu toll tey. kon war nañu xoolaat suñu jikko tamit le président même il doit revoir son comportement aussi par rapport à ses comportements par rapport à ses Oui, parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui fait on coupe, c'est pour ne pas que les gens ils sachent ce qui se passe au Sénégal. Et, et Sénégal aussi, on connaît pas ses comportements, on veut que ces, comportements cessent aussi. mais euh, sa gis-gis est-ce que TikTok rek mooy joxe li nga xamante ne si moom mooy information parce que bu nee euh, TikTok yaakaar naa ne donte dañ koy suivre bu baax a baax mais euh, YouTube mu ngi fi Instagram mu ngi fi. youtube beeg yeneen ak yeneen yeneen réseau yi daal ñu ngi fi te yooyu yëpp boo xoolee dañ ciy joxe li nga xamante ne si moom mooy information bi lan lan nga mooy sa gis-gis li tax ñu singale li nga xamante ne si rek moom mooy euh, TikTok. waaw dañ ko coupé parce que man gis naa ne ñoom am na lu ñu nëbb tamit waaw parce que ni soo soo leeree da ngay li ngay def soo leeree da ngay bàyyi wax lu ñuy wax tami parce que ici on est un pays de démocratie un pays exemple